bismillahi irrahmani irrahim lii mooy qasidatu xoqal bukaa xoqal bukaau ala saadaati amwaati tabki al araadi alayhim kazamawaati ne am na sang yu baax yu fi nekkoon ba dellu ci seen borom day warees na leen a jooy ndax asamaan ak suuf sax ñi ngi leen di jooy abki alayhim wa arju fi lbukaai gadan ridwana man fi gaabu bil xalawaati nee na maa ngi leen di jooy te yaakaar ci jooy yi yàlla fayama ci ngërëmam yàlla mi nga xam ne ñoom sang yooyu dañ ko mosoon bu neex ñu jàpp rek too bàyyi ba gu ci ngërëmam jooy yi ma leen di jooy maa ngi ci yaakaar yàlla gërëm ma ci bu ëllëgee fa nga xam ne fa la ngërëm amee njariñ yaa lahfa nafsi ala faqdi al akaabiri man xaabu li rabbin daahum lil uluwaati am na njàqare ak tiis lool ci gaa yu baax yi nga xam ne dem nañu rek am naa njàqare tiis lool ci demuk gaa yu baax yi nga xam ne dañoo dellu ci seen boroom moo leen woo bëgg leen a añal ndax gërëm gum leen bërëm tabki layaali alayhim wa suhuuru maan misla al azibi wa din wal guduwaati ne ñoom day guddi guddi ñi ngi leen di jooy weer yi ñi ngi leen di jooy suba ngoon ñi ngi leen di jooy te yi mu wax yépp ànd ak tiis ak njàqare ci dem gi ñooñu dem kaanu ibaadan bi taatin li rabbihim wa kaana jalla lahum rabban bi minnaati ne dañoo doonoon ay jaam yàlla dëgg-dëgg taxaw ci àq yàlla kem seen kattan kem seen kàttan yàlla itam koo ko nekkal mu nekkal la mu daal leen di nekkal sotti leen ay xéewalam kaanu yaudduuna tarkal wirdi maa shibahin min alxalaali min asbaabi almusibaati wirdi mooy jaamu yàlla goo xam ne warut ñu sàkkal ko waxtu woo xam ne bu ci jaam bi àggee rek def ko ngir yokk ko ca tuyaaba loolu day mel ne kon bàyyi ko wërta diis mu ne waaye ñoom nag dañoo diisaloon lool bàyyi wirdu mu leen di raw ba tey am lu lew lekk ca ba regg day mel ne ayut te wërta jur musiba mu ne waaye ñoom dañoo jàppoon ne regg ci wilaw moom bokk na ci na yi gën a mën a sabab musiba gën a mën a yàqal nit kaanu isa llaylu arqa sitra saa xalakin xaamu ziraan li ixyaai dujunnaati nee na ñoom day bu guddi ma saa jot bu mu lëndëm nelaw neex nelaw neex dañuy bàyyi seen nelaw jóg jóg di dundal di dundal guddi ga ngir yàlla ci mboolem xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne man nañ ko mën nañ te yàlla gërëm ko baaxu fudulan bi sikrillahi xaalixihim fa nawmu fi llayli baaxu bil munajaati nee na ñoom day dañoo tàggoo woon ak lépp lu waxi caaxaan te taqoo tudd yàlla mi nga xam ne moo leen bind rek xam ne kon tudd yàlla rek moom lañ taxoo woon tàggoog caaxaan yu waxi caaxaan faw faw bu guddee itam ñu jaay nelaw jënde ko diyaaleeg yàlla maanaam guddi duñ ca nelaw dañuy taxaw temm ci diyaaleeg seen borom. tajful madaaji fi laylin junubuhum يوم ناسين سلمى وليلى بالبشارات bu guddee ba tëdd neex dañu daal di bàyyi seeni tëddukaay fàtte jongoma ni ki Salma ak Layla dëgmal rek seen boroom di diyaaleeg moom di ko jaamu. fa xaysuma barasat Layla bi baajatiha anha tawallaw ilal mawla bi taati. saa yu jongama génnee ñoom. dañ koy daw wan ko gannaaw dolli ko jëm ci seen boroom dolle. topp seen boroom fàtte jongomaak taaram baak lépp li àdduna ak li ci biiram yansawna layla wa sooda fi xiyaamihim mustanisiina bi askaarin wa ayaati nee na bu guddee ba ñu taxaw di jaamu yàlla mooy di julli seen xel du nekk ci lu may yàlla rek ak ak màggam ak bëgg ak bëgg jot ngërëmam waaye suñu xel du dem ci jongama ni ki layla mbaa soxda déedéet buñ dee jullee buñ dee sikkaroo buñ dee jàng alquran daal lu mu ci mën a doon yàlla rek mooy nekk ci seen seeni xol fàtte nañ lépp lu bokk toy yàlla rawante na nag jongama niki layla ba sonda xadiisuhum zikru mugnin naafiin samadin la zikru himnin walum naafil maqalaati ci waxtaan yëpp daal mooy tudd yàlla rek tudd yàlla mbaa leneen luy dellu ci tudd yàlla ndax yéene ji rek ca la ñuy sax waaye du ñu tudd waxtaanu jongoma mbaa waxtaanu adduna xawmun bi aslihatin aadaahum qaharu xatta alaw bil madaaya wal karaamaati gaa baax la ñoo xam ne not nañu seeni noon te mooy bakkan bànneex seytaani àdduna not nañu nañu seen noon yooyu ba daal di am ay ngëneel ak i karaama yoo xam ne seen boroom moo leen ko defal arkaanu bayti jamii alqawmi arbaatun biha yu'azzazu bunyaanu alwilaayaati wilaaya ci boppam su fekkee da nga koo misaale ab néeg ni ki ab tabax kon xamal ne am na yeenti poto yoo xam ne ñoo koy tee daanu maanaam daal ak wilaaya yeenti muy bëgg a wax ki lañ koy amee mooy fondement ba sumtun wa juun tawilun baadahu zahar wa uslatun an shuyuxin yent yi de nee na mooy téye seen làmmeñ ci jëpp wax ju amul tuyaaba muy benn nangoo xiifal seen bopp te yàlla tax yàlla tax nango nangoo fokk maanaam yàlla jaral leen bàyyi seen nelaw di deyaaleeg moom muy ñett muy ñett ñeenteel ba nag mooy taqoo beru waaye nag beru googu balaa am kat dañuy wéeru ci sëriñ boo xam ne bu xam yàlla la mu leen di junj di leen tegtal ñuy jëfe juñ yaa tegtal ya te beru nag di moytu bépp jaxasoo bu amul tuyaaba kon ñeent ñi mooy ponki tasawuf tasawuf mooy ponki mooy ponki wilaaya wilaaya noppi ci jëpp wax ju amul tuyaaba nangoo xiif te yàlla tax xiif ba nag mën naa tàmbalee ci digg doomu rek ndax bu xiif yi ëppee mën naa moon tëlbati baa wéradi kon day def rek balaa lekk yittiwoo ko bu baax a baax te balaa jege rek bàyyi bàyyi tàmbalee ca noonu nag dara mujj dara mujj mën a weesu loola ñetteel bi mooy ñetteel bi mooy néewul ay nelawam ci guddi nelaw mënta ñàkk waaye mu néewul ay nelawam ndax ndax jaamu boroomam ko ñeenteel nag mooy néew jaxasoo bu amul tuyaaba xawmun tariqatuhum takfi almurida adan min almaridi wa anwaa algururaati gaa yu baax lañ yoo xam ne ku aw ci seeni yoon daal yàlla mën naa def nga mucc ci lori seytaane mucc itam ci xeeti waru yi waru nag mooy yëngatu ci loo xam ne zahir sa am na njariñ am na tuyaaba waaye am na lu ko yàq ca biir te moom ma ci yëngatu yëgu ko tariixuhum qasdu wajhi llahi duna hawan ma al uzulilati shiitan fi ruunaati arroonatu dañ koy firi ak ndox waaye bu ko nit suuf yi waxee dañuy wax ne mooy alwuquufu maa xuduudi nafsi wa muqtada tibaa'iha maanaam saa yu nit ki àndeeg bakkanam far bakkan ba ca la mu bëgg lu mu laaj rek mu fekk ko ca loolu moo tudd arroonatu ci ni ko waa tasawuf yi waxe mu ne seen yoon day moom ci gàttal mooy dëgmal jëm yàlla yi kese yàlla rek ñor leen àjjana sax di leen yitteel ngërëmul yàlla rek la ñuy yittewoo sori topp bànneex ba noppi nag ànd ak cosaan yi nga xam ne moom lay bëgg a wax te mooy tax ci mucc ci arwoonatu bi nga tuddoon léegi. loolu mooy loolu mooy min tawbatin xudimat xawfin rajan maahu igzaaru xusnin dawaaman bilqanaati والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالغضاء رضا ترك التفات إلى حال البريات mbir yi mu doon wax nee na ba ci njëkk mooy tuub tuub moom moo njëkk ci yoonu tasawuf tasawuf ku ci bëgg a dugg ku ci bëgg dugg da ngay tuub lépp loo weesu woon fas yéene rafetal li nga li nga toll jëm ca kanam jëm ca kanam ñoom nag nee na ñoom nag nee na tuub la ñuy jiital kon boole ca ak ragal ak ragal ragal yàlla ba ragal yàlla ba sori koo su mooy ragal yàlla bokkut ak ragal yàlla bokkut ak su xew-xew bu tiis amee bu tiis amee nga jooy nga jooy daw daw ragal tiit ragal tiit waaye du tee nga dellu ci say càggante googu ragal tax ñuy wax ragal gi ñuy wax mooy ragal yàlla ba di sori gi sori lépp lu mu bëggut bëggut yaakaar mooy ñetteel bi yaakaar mooy farlu ci farlu ci topp yàlla bu baax a baax te rafet njort ci ne la mu dëlee ci topp yàlla yooyee da nga ci jot waaye moom itam bokkut ak rek jàpp ne yàlla ku bari yërmaande la la nga yittewoo bu ëllëgee muy xéewal ak àjjana yërmandeem àgg na ci jox la ko doonte toppoo ko lu mel noonu dañ koy tuddee ak bëggee ak tamaw ba ci topp mooy fu ñu toll dañuy bari seen njàqare ndax koo xam ne ndax koo xam ne xamoo sa mucc xamoo sa mucc foo toll foo jàq rek jàq rek moo la war moo la war waaye war la am xel mu dal xel mu dal dañ cey boole ak doylu lool ñun yàlla jox rek doy leen sëkk ba ca tegu mooy dañuy dëddu lépp luy jeex lépp lu dul yàlla ngërëmum rek dañ koy dëddu ndax lu dul loolu day jeex ñu boole ca ak sàmm goo xam ne lu ayut sax dañ koy moytu ndax bañ a dugg ci lu aay boole ca itam taqoo wakkillu ci yàlla wakkillu ci yàlla mooy sabablu sabablu def la nga man te jàpp ne yàlla nag mooy sottal mooy sottal boole ci itam taqoo muñ saa yu nekk ndax muñ moom ndax muñ moom farata la farata la mënta ñàkk mënta ndax nee nañu ndax nee nañu ndax nee nañu daanaka daanaka nit ñi ñi ngi rawante ci ak mën a muñ ndax li ci ëpp ndax li ci ëpp bakkan yi bakkan yi ñoo bokk lu ñu bëgg bëgg bu ko defee nag bu ko defee nag jaamu yàlla yi rawante ci rawante ci moytu seen bakkan ak bànneexam di muñ di góorgóorlu ci aw ci dëgg ak lay maye ak ngërëm ngërëm moo tax mu ne ak jihaat ak bakkan dañuy jihaat ak bakkan te jihaat ak bakkan la ci jiitu rek mooy nangoo xiif bakkan moom xiif rek la ragal bu fekkee doo regg benn yoon rek li ci ëpp sa bakkan du la gétam du la ëpp doole ak itam ak itam ñuy sant yàlla fu ñu toll ak itam ak itam gërëm la yàlla dogal la yàlla dogal ak it nag ak nag ñàkk a geestu ñàkk a geestu menn mbindéef te xam ne te xam ne yàlla rek moo fi nekk ak jëfum jëfum mu bokkutoo yàlla rek jëfum la jëfum la nit ñi ak lépp luy mindeef yàllaa koy yàllaa koy wëndeel wëndeel di ko wëlbati rek waaye waaye amul dara loo xam ne mooy walbatikul boppam maanaam mooy yëngutul boppam déedéet di yëngutu lu ne yàllaa ku yëngal ñoom nag loolu la ñuy bàyyi xel ba du ñu geesu ku may yàlla du ñu geesu lu dul yàlla tariquhum ashratan jaat lawaasimuha la budda minha li arbaabil iraadaati ne yoonu gaa yu baax yi day man nga koo misaali ak tukki boo doon tukki ci àdduna tukki ci àdduna am na fukk yoo xam ne fukk yoo xam ne da nga ko aajowoo ca tukki ba tukki ba ñoom itam nag ñoom itam nag seen tukki bii ñu dox tukki bii ñu dox jëm ci seen boroom jëm ci seen boroom am na fukk yoo xam ne fukk yoo xam ne fukk yoo xam ne dadul bokk nag waaye dadul bokk nag waaye noo muy amee rekk ci noo muy amee rekk ci noo muy amee rekk ci tukki bi àdduna tukki bi àdduna tukki bi noonu la tur way amee moom it tur way amee moom it seen tukki bii seen tukki bii day def nag day def nag bu tuddee bu tuddee ne lii mënta ñàkk ci mënta ñàkk ci tukki bi àdduna tukki bi àdduna daal di nag bu dee gaa yu baax yi ñoom ci seenu tukki ci seenu tukki loolu nangam lay doon ci ñoom fa maqsadun wa huwa ma yufdi ila safarin minha dalilun ka shaykhin si futuhaati booy tukki booy tukki ci ci tukkib àdduna foo xam ne mësoo faa dem faaw nga aajowoo ku la tegtal yoon wa ñoom nag seen yoon ab sëriñ boo xam ne boo xam ne aw na ci yoonu yàlla ba xam pakk ya kumpaam denca mooy doon seenu tegtal والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات tukki bi tukki bi di tukki bi àdduna boo koy def faaw nga aajowoo yóbbal yóbbal ñoom nag seen tukki jëm ci yàlla ragal yàlla mooy seen yóbbal seen yóbbal wa tasawwadu xayra zaadi taqwa boo dee tukki fii ci àdduna da nga di aajowoo yore ngànnaay ñoom nag seen tukki lañ cey gànnaayoo mooy taqoo am njàpp minha siraaju bi zikrillahi jalla ala minha almataaya bi himmatin aliyaati tukki ci àdduna da nga yoraale ab làmp ndax bu lëndëmee nga cay niitu ñoom nag seen tukki bii saxoo tudd yàlla moo cay seenub làmp ba leen di leeralal boo dee tukki fii ci àdduna te tukki ba tukki sori da nga aajowoo loo war mu yóbbu la ñoom nag nee na yitte ju kawe kawe rek mooy seen warukaay ba nga xam ne moo leen di yóbbu minha alxukaasu bi ajsin walxisaamu lada ahli tariqati xasmun bilxaqiqati li ci ëpp ëpp kuy tukki ci àdduna tukki ci adduna da nga di yore da nga di yore aw yat aw yat ni ki ab dokk ni ki ab dokk ñoom nag ñoom nag seen dokk seen dokk ba ñuy sukkandikoo ñuy sukkandikoo mooy rek mooy rek xam ne ñoom xam ne ñoom mënuñu dara waaye mënuñu dara waaye seen borom bi ñu jëm borom bi ñu jëm ku man la te du leen seetaan xajjusu mooy jaam bi nangu ne moom ku lottu la waaye nag yank kàttanu boromam mi nga xam ne dara ko tawu ko. kuy tukki ci àdduna da nga faral di laxasaayu ndax mu dimbali la ci dem ji ngay dem ñoom nag nee na seen laxasaay mooy takku rek takku temm ci mbir mu mu ne ñu taxaw ca fa saasay saasa def ca la ca war bañ koo xaare jenn jamono ba noppi nag jàpp ne yàlla moom mooy sottal takku googu de ñoom mooy mooy seen laxasaay laxasaay wa min lawaasimiha minhaajuha abadan wa hiya shariatu fi badin wa gaayaati boo dee tukki fii ci àdduna du ñàkk yoon woo xam ne ca ngay aw ndax foo jëm fu ne rek am na yoon woo xam ne moo la ci yóbbu ñoom nag fee ñu jëm topp rëddu shariha dañ ko wàcc benn yoon mooy seenu yoon yoon ñuy wax na rek ñoom yàlla xol bu set la soxla la soxla mel ne kon mel ne kon boo jàppee ne sa xol a ngi set rek la neexee bañ a sàmm sharia ni ki jàpp ne sañ ngaa def lu yàlla aaye woon mbaa sañ ngaa bàyyi lu yàlla dégle woon déedéet ñoom dañuy sàmm sharia ci seen njëlbeen dox ba ca seenu àgg ak gannaaw seenu àgg wa rufqatun wa hiya ixwaanun lahum himamun ma alwafaa bi sidqin fi luquwaati tukki fii ci àdduna ki koy def ki koy def dana ji aajowoo ay àndandoo ay àndandoo ñoom nag seen tukki seen tukki ñañ cey àndal ñañ cey àndal mooy fekk gaa yi bëgg yàlla na ñoom di ñu matal wëlëre di ñu dëggu ñu dëggu ñu def leen ni ñu def xarit def leen àndandoo ci yoonu yàlla woowee ñu aw wal kullu min jumlati saadaati suurata bin yakfi l murida maridan za gawayaati sang yu baax yi kenn ku ci ne ku rëy daraja lay doon koo xam ne taalibe bu ànd ak moom mu fegal la seytaane mi nga xam ne dafa bew tey bewloo réer tey réeral kullun min alxawmi cheikhun aalimun wariun minhum murabbin bi azkaarin wa xaalaati منهم مرق بحال ودها أبدا منهم مرب مرق بالإشارات gaa yu baax yi nee na ku ci nekk day doon sëriñ boo xam ne day amu xam te amu sàmm biir ak biti ku ñëw nag bëgg maneeg sa borom maneeg sa borom mooy xam mooy xam na mu lay xeetalee ba nga maneeg sa borom sa borom sa borom am na ci ñoo xam ne ci ñu dee tërbiya nit dañ koy jox lu muy zikkar zikkar mën naa am itam ñu koy lëggeeloo mën naa am ñu koy yelwaanloo da nga gis koo xam ne bu dee tarbiya ak tarxiya ci ay junj la koy defee ba tey sax mën naa am ci xaal rek la sëriñ bay tarbiya ak tarxiya yàlla daa wutale seeni mbir jaam yàlla yi ñëw ci ñoom it te bëgg a xeetliku wuute ay mbir yàlla nag yàlla nag moo leen defal tawfiix ba kenn ku ne rek ñu fajala ñu fajala na nga wéradee wéradee ba nga mëneek sa boroom sa boroom kullun xabiirun bi adwaa'i lxunuubi ma'an yakfi lmuridiina anwaa shaqaawaati kenn ku ne ci gaay yu baax yi daal nee na yàllaa koy xamal jàngoro xol yi bu kumpaam denca ku dikk nag mu daal di xam na mu lay dindile jàngoro jooje ci kàttanu yàlla ak coobarey yàlla te it taalibe bu ñëw ci ñoom rek daal di sori ak texee di ak texee di kullun karimun taqiyun suhudan wa saqan yumdi nasihata fi kulli kenn ku nekk ci ñoom daal day nekk waa ju baax ju ragal yàlla ju jub ju tabe di tabe ci alalam ak ñaqam ngir yàlla di koo xam ne ku nu gis rek laabire la te yàlla tax ndax li yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon ne ad diinu an nasihatu diine mooy laabire yamhu bi taqwan xusuusan nafs jumlatiha yahi uluman min al mawla zaniyati mooy xam-xam yu mooy xam-xam yu ama am solo ama am solo yu jafe-jafe yu jafe-jafe kenn ku ci kenn ku ci ne bu ab taalibe ñëwee taalibe ñëwee dañ koy dindil dañ koy dindil wàlli bakkanam wàlli bakkanam la bakkanam amoon ci moom ci ay cër ba di ko yàqal ba di ko yàqal yooyee la sëriñ si dindil ab taalibe bu dikkee wutal faragal yàlla goo xam ne mooy tax mooy tax bakkanam du ko mën a yóbbaaleeti wàllu bakkanam du ko mën a yàqalati yàqalati te kenn ku ci ne te kenn ku ci ne yàllaa koy xamal ay xam-xam yoo xam ne ci coobareem rek la koy xamale jaamu ba mu taamu waaye sax du loo xam ne yàgg yër ak yàgg gëstu moo koy maye moo koy maye yubdi tariqata ahlillahi waadihatan lilmuhtadina jamian bil fuyudati kenn ku ne ci gaa yu baax yi day wane yoonu yàlla fu mu toll mu leer nañ ku ci bëgg aw ku ci bëgg aw ca aw ca ndax yàllaa leen sotti ay may yoo xam ne yu wuute la ay xam-xam ay ngëneel yu bare bari kullun lahu himmatun yarga biha abadan ila azizin mu'izzin bil futuhati gaa yu baax yi nee na kenn ku ci ne day am yitte ju kawe kawe joo xam ne ca lay yéege jëm ci yàlla moo baax mi nga xam ne moo mën a maye ay ay ay fatxu kon kenn ku ci ne day am yitte ju kawe joo xam ne ca la yéege ca yéegale jëme ca yàlla mu màgg ma yaral xafaaya bi aynil xalbi zahiratan kama yushahidu ma taxta al akinnaati baax yi kenn ku ci ne xolam day set ba nga xamee ne day gis ci xol bi yu làqu ya te yàllaa ko koy wan ndax dañu ne xol day gis tey gis ñi nga xam ne moom la bët di gisee di gisee di gisee gis bët gis gisu bët mooy xool mooy xool dox diggante asamaan ak suuf asamaan ak suuf gis xol nag gis gisu xol nag mooy gis mooy gis mooy gis la dale ca la dale ca asamaan asamaan jëm ca nguuru yàlla gu làqu ga iki arasak kursi yoog mboolem nguram gu làqu gi mu ne nag ñoom gaa yu baax yi yàlla day leeral seeni xol ba nga xamee ne dañuy mën a gis yu làqu yi di xam yu nëbb yi di jàkkaarloog yu làqu yooyee bu mel ne ni bëtu bu saahir di jàkkaarloog yu fës yi noonu la ñuy jàkkaarloo ñoom itam ak yu làqu yi yaxwi diyaan ka daw ishamsi xaysu naxa yaxba biha kullu shaxsin si sinaaraati kenn ku ci ne kenn ku ci ne yàllaa koy may leer goo xam ne day leeral leer ba mel ne leeru jant bi fu mu jëm rek yóbbaale fa leer googu nga xam ne jépp jëm di dikk ci ñoom rek te bëgg a tàggoog la mu xol daal di mën a duy ci seen leer yi te feesal dell bay mën a leeralal ñeneen yaqibu an kulli kawnin lil mukawwini saa nuurin azimin wa sirrin min guyubaati gaa yu baax yi koo ci gis day jeex tàkk ci yàlla ba fàtte lépp lu bokkut ak yàlla yàlla rek lay daj du dajati leneen yàlla rek lay gis du gis du gisati leneen day xam ne rek te wóolu te jàkkaarloo ne yàlla képp moo fi nekk ak jëfam koo ci gisit yàlla dénk na ko leer gu rëy rëy xamal ko ay secret ci mbootum ya nga xam ne moo koy xamal ku ko soob yamhu anil qalbi raynan qad yudannisuhu mahwa al muqassili an zawbin najasati gaa yu baax yi kenn ku ci ne ku tukki fi moom te indaale xol bu tilim dala koy fóotal ba mu set wecc wecc dal ne ku mën a fóot nga jox ko perkaal bu ko fóotee du bàyyi na perkaal bay sete ak na muy leere na muy weexe tàll noonu la sëriñ bii di fóote ku indi xol bu tiim fi moom أولئك القوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين سعادات nee na gaa yu baax yi ku yàlla baaxee ba ngay ànd ak ñoom di toog ak ñoom texe nga ba faaw te doo gisati mukk lu bokk ci texee di ndax ñoom dañuy fàggul taalibe yi ak texe ak texe gu sar ba faaw faaw. tuuba li abdin muridin saadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyaati gaa yu baax ñii gaa yu baax ñii bépp jaam bu bëgg yàlla bu bëgg yàlla bu ñëw ci ñoom bu ñëw ci ñoom bu ñëw ci ñoom te ànd ko dëggal ànd ko dëggal moo xam moo xam da nga leen a liggéeyal moo xam da nga leen a sopp moo xam da nga leen a jox addiya te yàlla tax lu mu ca doon rek lu mu ca doon rek xamal ne am nga texe goo xam ne day sar faw faw am nga texe adduna am nga texe alaxira rawante na nag rawante na nag ku boole yett yëpp muy sopp leen muy sopp leen di leen lëggéeyal di leen lëggéeyal di leen jox addiya di leen jox addiya ku yàlla baaxee daal ba nga def lii nee na am nga texe goo xam ne texe goo xam ne day sar rek di yooyu sar rek di yooyu amut fu mu yem amut fu mu yem texeg adduna ak alaxira lay doon lay doon naalu bi qafi rasuli almustafa rutaban salla alayhi alladi yuti almadiyati nee na gaa yu baax yi day sax ga ñu saxoon ci xañtu sunna muy jaar jaar yi yonante ba ca la ñu amee lépp luy daraja fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira seen boroom defal leen ko kon daal ci xeeñtu sunna ci li leen yàlla maye lépp luy daraja naalu bi xafi alladi jaa al aminu bihi alayhi minhu salaati kulla daati من المناخب ما لا يحتوي خلم ولا لزان بخط أو حكايات gaa yu baax yi day nee na sax ga ñu saxoon ci di xeeñtu suuf yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tax nañu am ci ay ngëneel loo xam ne daal xalima mënu koo bind làmmiñ mënu koo nettali منها تبحر في علم الشريعة مع علم الحقيقة من قبل الرياضات isir diyaadun ma al irsaadi qablahuma min jaalibaatin guruurin ma shaqaawaati bokk na ci seeni ngëneel bala ñoo dugg ci tàggatu ci yoonu yàlla dañuy géeju ci xam-xamu shariha géeju ci xam-xamu tasawuf ndax nee na kat ndax nee na kat ndax nee na kat di jéem a tàggatu ci yoonu yàlla ci yoonu yàlla ci yoonu yàlla te fekkul nga géeju ci nga géeju ci xam-xamu shariha ak xaqiqa bu andi lu wéy ak wóoru akut texeet rek rawante na nag moom géej wul ci xam-xamu shariha ak xaqiqa ba noppi di jéem woo mat kenn naa daa ko yóbbu ci yàlla kooku moom day boole sànku ak sànkaate day boole réer ak réeral day boole texeedi ak texeedil ñooñee muy jéem a woo mat منها توقف عن غول وعن حمل حتى يروه صحيحا بشهاداته bokk na ci seeni ngëneel bokk ci seeni mbir duñ jekki-jekki song jenn wax mbaa jenn jëf te teyluñu ba xam lu ca lislaam wax lislaam wax faw rek faw rek seen wax ak seen jëf ak seen jëf dañ koy wéer fu wér wér ci alxuraan ak sunna waaye du ñu songu jenn wax mbaa jenn jëf te fekkul ñu xam la ca yàlla wax ak la ca yonante bi sallallahu alayhi wa sallam wax منها تلاثم خوف الله مالكهم حال البدايات مع النهايات إذ في البدايات خوف الذنب يزجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات nee na bokk na ci seen mbir daal ci seeni ngëneel dañuy taxaw ragal yàlla ca ba ñu door a jóg ak bi demee ba àgg ci seen borom ndax ba ñu door a jóg moom ba ñu ñàkk yàlla li ñu wut mooy tax ñu ragal ko ba dañ ko xalaata mooy lukk lukk te bi ñu demee ba àgg itam xam ne yàlla màgg na màggaay goo xam ne kenn waru koo xalaata mooy loolu moo tax kon si ñu ragal yàlla te taxaw ñoom ca ba ñu door a jóg di aw ci yoon wi ak bu ñu demee ba àgg àgg daañu koy misaale gone gone bu xamee ne bu defee sobe ci kawlal bi mbaa fii ci róom bi daañu ko caw ragal caw ya day sax du fa def sobe soosee su demee nag su demee nag bay mag itam bay mag itam wóor na ko ne moom wóor na ko ne bu ko defoon tam kenn du ko caw kenn du ko caw du tee dana xam ne rek du tee dana xam ne rek fii moom yëlloowute def sobe ku bëgg a def sobe da ngaa war a dem ca wana wa wana wa minha talaasumu hadmin nafsi duna riyan min kawniha fata makrin wal xiyaanaati bokk na ci seen mbir fu ñu toll dañuy gotti seen bakkan di toroxal seen bopp te yàlla rek tax ngistal taxut bëgg ku leen gis mbaa ku leen tagg déedéet yàlla rek tax ñu def loola ndax dañu xam ne bakkan moom ab warkat la ku mën a yàqal ab jaam la digganteem ak boroomam moo tax du ñu wóolu mukk mukk seen bakkan fu ñu fu ñu toll di ko gotteeka toroxal هم أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات gaay yu baax yi dañuy jàpp ne ñoom ñoo yées ñëpp ñëpp a leen gën dañuy defe ne daal li yàlla sàkk ñoom ñoo ci yées ñoo ci gën a bon dañuy jàpp ne itam yemewuñu genn genn karaama dañuy jàpp ne sax su asamaan si tawut seenu mbon a tax bu yàlla wàccee balaa ci kaw suuf sax ñoo ngi jàpp ne seen mbon moo tax yàlla wàccee balaa yooyee ci kaw nit ñi wa annahum afsaqu lfusaaqi kullihim wa annahum lam yaliqu bil ijaabati dañuy jàpp ne dañuy jàpp ne ñoo gën a ñoo gën a saay saay ñëpp saay saay ñëpp yëloowu ñu sax yëloowu sax ñaan yàlla ñaan yàlla mu leen di leen may mu leen may dañuy jàpp ne sax dañuy jàpp sax bu bu nit ñi dee baaw nit ñi dee baaw wala ñu dajaloo di ñaan yàlla jenn aajo ñoom buñ ca bokkee man naa tax sax yàlla bañ a wàcc ab taw bañ a ab taw bañ a nangu bañ a nangu ñaan yooye ñu koy ñaan minha talaasumu sabrin lil ilahi ala jawril uzaati jamian wal musibaati bokk na ci seeni mbir leen yàlla teg ci musiba lu mu diis diis dañu koy muñ muñ gu rafet ngir yàlla ba tey tooñkat yi waram doole yi ñeme yàlla bu ñu jógee dal ci seen kaw dañuy muñ rek daal di jàpp ne ñoom kat ñoo tooñ seen boroom def lu wërta def ba yàlla xabtal ci seen kaw waram doole yooyee moo tax mu ne kaanu isa naabahum min nahwihim dararun taabu ila allahi min kusri alxatiaati tooñkat yi jóge jógee dal ci seen kaw du ñu yedd du ñu yedd tooñkat ya tooñkat ya seen bopp la ñuy yedd jàpp ne ñoom ñoo bari ay bàkkaar ak ñaawteef ba tax yàlla xabtala gaa yu bon yooyee ba ñu dal ci seen kaw su ko defee nag kon dañuy tuub rek dellu ci yàlla waaye du ñu yedd ñooñee dal ci seen kaw wa min manaqibihim ridwanu rabbihim alayhim dahra xusnun ko zaati ne bokkul ci seen ngëneel saa yu ne dañuy ànd ak dañuy ànd ak xol bu daladi dañuy tiit ak a jàq ci seen diggante ak seen boroom ndax xam rek yàlla ni mu màggee mu ak sañ-sañam bi ni mu réyee te yàlla dara tolluñu fenn fi moom lu ko soob rek lay def loolu tax nag fu ñu toll bàyyi xel loolu ba di jàq ka tiit ak a dellu ca seen borom wa min sajaayahumu xawfu nifaaxi bada xawfu alfuduxaati fi awli alxiyaamaati bokk na ci seen mbir dañuy moytoo feeñal lu niwul ci ñoom ndax ragal bu bis pencee urus ragala rus bis ci day tax ñu moytoo feeñal dara dara mu nekkul ci ñoom ndax xam ne ëllëg bis penc lépp day feeñ jaam yàlla yi jàkkaarloog moom minha tawaadu lil qahaari malikihim wa sidqu wa zuhdu ma tadhiri afaati bokk na ci seen mbir fu ñu toll fu ñu toll ñu ngi toroxlu ñu ngi toroxlu di woyoflu di woyoflu jëm ci seen boroom jëm ci seen boroom ànd akuk dëddu ànd akuk dëddu ànd ak wan gannaaw ànd ak wan gannaaw lépp lu bokkut ak yàlla te fas yéene set ci lépp te tee ñu mënee seen boroom min hal tijaa'u ila rahmani fi abadin jalban wa dafhan bi inhaa'i shikaayati bokk na seen mbir fu mu toll dañuy wéeru ci yàlla ci bu ñu dee ñoddi ak bu ñu dee jiñ lu ñuy jiñ te ñi wéeru ci yàlla sàkku ci moom mu jiñal leen ko mu ñuy ñoddi dañuy wéeru ci yàlla yalwaan ko mu ñoddil leen ko duñ jekki nag di jàmbat menn mbindéef déedéet bu jàmbat mënta ñàkk suñu borom rek la ñuy jàmbat waaye buñ jàmbat mukk mbindéef wax dañuy xam ne mbindéef xamut mënut sañut te dëgg-dëgg yàlla rek moo fi nekk ak ay jëfam lu bokkut yàlla rek jëfam la jëfam la al ilmu simatuhum wal xilmu daydanuhum duna daawi wa inkaari al maqaamaati ñoom day nee na xam-xam bu wér lañu leen di xàmmee lewet mooy seen mooy seen mbir mooy seen baax te nag te nag duñu woote wilaaya duñu weddi itam wilaaya keneen duñu woote wilaaya duñu weddi wilaaya keneen mbaa maqaamab keneen aahin ala faqdi saadatin tariqatuhum tariqatu lmustafa gayri lbariyati maa ngi dellu nee na di jooy di wax wóoy ci demu gaa yu baax yi nga xam ne fa yonent bi awoon rek la ñu tegan seen i tànk mosuñu ko wàcc benn yoon ba nañu delloo ca seen boroom salla alayhi ma taslimi mursiluhu bil ali wa sahbi man faazu bi jannati صلى عليه مع التسليم باعثه أزكى صلاة بها نفى القرورات tudd gi mu tudd yonante bi rek moo tax muy baamoo ko baamuwaat di ko ñaanal salaatu ak salaamu daal di ne yàlla mu yoon yonante bi yàlla na ko saxalal teraanga ak jàmm moog mbokkam yaag saxaabaam ya yàlla mu yoon yonante bi yàlla na saxalal yonante bi ay mbokkam ak ci saxaabaam ngën ci teraanga ngën ci jàmm ngën ci teraanga joo xam ni ñun sax dañu cay fegale xeeti waru te waru waxan na ne mooy yëngatu ci loo xam ne ci zahir am na njëriñ waaye am na lu ko yàq ca biir te ka ci yëngatu yëgu ko yëgu ko salla alayhi ma taslimi xaaliquhu bil ali wa sahbi man haazu matiyati صلى عليه مع التسليم مالكه أزكى صلاة بها نهو الفتوحات day baamu rek day baamu rek di julli ci yonent bi yàlla mi sàkk yonent bi yàlla na ko yàlla na ko saxoo dollil saxoo dollil teranga ak jàmm teranga ak jàmm mook ay mbokkam ak saxaaba yooyu nga xam ne nga xam ne yàlla yàlla joxan na leen joxan na ay may ay may yàlla mi nga xam ne moom moom yonante bi moom moom it ñëpp ak lépp yàlla dool teraanga ak jàmm yonante bi te teraanga jooju sax nun mu mayee nu ci xeeti ubbi yi nga xam ne moo koy may ku ko soob salla alayhi ma taslimi rasiquhu bil ali wa sahbi man daanu bi taati صلى عليه مع التسليم مكرمه أزكى صلاة بها نحو الكرامات صلى عليه بتسليم مسوده بالآل والصحب منال العنايات daawuñ rëcc ci daawuñ rëcc ci julli ci bi julli ci yonante bi ne ne yàlla mi yàlla wërsëgal yonante bi di wërsëgal ñëpp yàlla na saxoo dool yonante teraanga ak jàmm saxoo ko dolli mbokkam yaa ak saxaaba ya nga xam ne dañoo dañoo saxoon ci topp yàlla sax ci toroxlu fu ñu toll yàlla mi teral yonent bi yàlla na ko saxoo dollil teraanga ak jàmm tey teraanga ja na sell sell réy réy ba nun sax nu amee ca ca xeeti karaama yi nga xam ne moom yàlla moo koy may ka ko soob ka ko soob yàlla mi nga xam ne yàlla mi nga xam ne moo def yonante bi mu dib sang fii ci àdduna ak fële ci àllaaxira yàlla na ko yàlla na ko saxoo dooli teraanga ak jàmm dooli ko it mbokkam yaak saxaaba ya nga xam ne yàlla leen mayen ay xeeti jagle yoo xam ne rek ci coobareem na leen ko maye maye salla alayhi bi taslimin musharrifuhu aska salaatin biha nawil كشوفاته yàlla mi teral yonent bi yàlla na ko saxoo dolli teraanga ak jàmm te sax teraanga ja sell sell réeréew ba mu mu may nu ca ay kashfu mooy may nu ca wan nu ay secret xamal nu yu làqu يلقى صلى وسلم من في الجهر قدمه عليه بالآل تعداد الغليقات yàlla mi nga xam ne moo jiital yonent bi mu fës ñëpp xam ko yàlla na ko saxoo dolli teraanga ak jàmm te baril teraanga ja ak jàmm ja ni li mu mbindee fii bare salla alayhi ma taslimi rafiuhu aska salaatin biha nawi irtifaati yàlla mi nga xam ne moo yëkkati yonent bi teg ko ca kaw yàlla na ko saxoo dolli teraanga ak jàmm te réel teraanga ja sellal teraanga ja ba nun sax nu amee ca ak jëm kaw di yéeg di yéeg di yéeg rek dafa ko soob soob dafa ko soob dafa ko soob dafa ko soob dafa ko soob ayin ala faqdi saadaati alladina madaw bima madaw min saxiratin ajibaati ina maa ngi dellu jooy di wax wóoy ci demuk sang yu baax yi nga xam ne dem nañu dem nañu yóbbaale yóbbaale may yu rëy yi nga xam ne yàllaa leen ko yàllaa leen ko defal defal yàllaa leen ko jagleel jagleel ala almuqaddami fi daarayni qudwatihim sala turadin daahum lil mulaaxaati yonent bi nga xam ne day yàllaa ko jiital adduna ak alaxira te ci moom te ci moom la gaa yu baax yi roy ba am la ñu am yonente boobu yal na ko yàlla dooli teraanga te yàlla moomu kat gannaaw bu mu gërëmee sang yu baax yi moo leen woo ci yu taseeg moom nag mu teral leen ñu daal dem wuuji ko ala alxabib ibni abdillahi sayidina salaatu kaafin kafaahum kulla gummaati yàlla mi nga xam ne moo fegal gaa yu baax yooyu lépp luy ci sa njàqare yàlla na saxoo dooli teraanga soppeem bii nga xam ne mooy sunu soppe doomi abdullah te moo di muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala almusaffai yawma alxazri fi lkurama fala tusaafin shafaahum min dasiisaati yàlla mi nga xam ne moo saafara gaa yu baax yi ba ñu tàggoo lépp luy texey bakkan texey bakkan yàlla na saxal ci yonent bi teraanga yonent bi nga xam ne bis pencee bis pencee moom rek moom rek moom la yàlla jagleel ramu mag ma taxawaay bi yàgg ba nga xamee ne nit ñi àgg nañ ci bi ñu leen doon jiital yóbbu sawara it nañ ko def waaye taxawaay bi moom sàppi na leen ñu àkk ñu ak yorante bu ne mu joxe aw lay mu ko tee mën a timu ci kanam boroomam su boobaa nag yonante bi rek mooy ñaan yàlla yàlla àtte nit ñi ci penc ma ndax penc mi tas ñee jëm fañ jëm ñee jëm fañ jëm loolu mooy ashafaahatu al kubra moom yonante bi rek lañu ko jagleel ramum bokkut ak moom nag moom yonente yi ak gaa yu baax yi yàlla may na leen ko ala allazi fadluhu la yantahi abadan salaatu haadin hadaahum listiqaamaati istiqaamatu rek moom la jamu istiqaamaat yàlla mi nga xam ne moo gindi gaa yu baax yi ba ñu saxoon ci ak njub ak njub bi rek biti bi rek biti yàlla na doy teraanga yonente bu baax bi nga xam ne ngëneelam amul fu mu yem ala almukarrami gayri alxalqi kullihim salaatu mugnin jazaahum gayra gayraati yàlla mi nga xam ne ku ko soob mu jox la ba nga doyal te moo fay gaa yu baax yi ngën ji tey yàlla na saxal teraangaam ci ki nga xam ne da koo soob mu teral ko def ko mu gën ci mbindeef yëpp yëpp alay yabqa salaatin bi salaamin an fi alihi alqurri turran kulla awqaati yal na yàlla yal na yàlla doole saxalal yonent bi teraanga ak jàmm ya gën a sax gën a sell gën a sell te boole ko ko ak mbokkam yu baax ya nga xam ne ñoo ko gëmoon ala sahabati wa saadaati kullihim ridwaanu rabbil araadi wa samawaati lañ weesu lépp daroon daamu julli ci yonante bi ñaanal ko ñaanal ko teraanga ak jàmm ñaanalaale ko ay mbokkam ak saxaabaam mu daaneele nag saxaaba yi ak mboolem ña topp ci ñoom di jéem a roy ci ñoom ba ci sang yu baax yi nga xam ne ñoo tax mu def xasida gi ak képp ku yàlla baaxal rek ba at nay tukki ñoom ñëpp lay ñaanal yàlla mi moom mi moom asamaan yeeg suuf yi ak ak képp ak lépp ak fépp mu saxoo leen a dolli ngërëmam ngërëmam ba faw ba faw faw foofu la xasiidatu xuqal bukaa yam képp koo xam ne rek déglu na déglu gi mu ñaanal ki ko doon jéema leeral ci waxi wolof ngën ji jégalu yàlla ngën ji yërmande yàlla te ëpp la ci ci ëpp tawfiix joo xam yàlla di yàlla jaarale la ci sëriñ bi ci sëriñ bi fii ci àdduna fii ci ak fële ci alaxira ci alaxira ci daraje yi ci moom sëriñ bi def moom sëriñ bi def xasida gi xasida gi radiyallahu anhu wa nafaxana bihi amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin